ñun ñu ni waaw. lu teewoon. bu 24 jotee. bu ñu xëyee ci 25 bi. ñu ziyaari taw. ñu dem wax ko ko. mooy loolu day bëgg naa ci. waaye dem leen ci Ablaye. ñu wax ko rafet na. ñu réunion. dajale la mu am. dajale la mu am. julli tisbaar toog ci kër gi. mbay si toog génn sëñ Ablaye génn. 1983. ba ñu defee sunu ziar. ba ñu defee sunu ziar. sëñ Ablaye tooyal xol yi. gaa ñaan ndax doonu may. may. Serigne Cheikh bi. wayal moom. ndax waykatu daayira bi la. way wi ma jëkk fekk way wi ma jëkk fekk mooy am na mahdi yu sama bàyyi muuñ nee na bàyyi muuñ ba ma ma yuuxu rek ma yuuxu rek nodd bi yi ñuy def yëpp jullee tax bu dara gàll koorati waxtu yàlla noonu ñu julli ñu ba ñëw moo jiite ñëwaat ci kër gi ma daal seen baax dugal ma way mag ñi bëgg loolu ba coow teg ne Ablaye li may ñaan xale yi dama bëgg bu déwénee yéen fanaanoo ko yéen doo ko. sama nijaay Seydi woon ñoom sama nijaay Seydi woon ci woon. te la daje kër Baye Madoum Baye waxtaan waxtaan def union des daayira jël Mbaye Ndiaye jël Mbaye Ndiaye jiital ko tàmbali fii di festel gouverneur bi ñëw. gouverneur ñëw. dëkk bi macha allah. waaye li yëpp. day am jëmm yoo xam ne lu ñu xamul wax ca. ba ya doxee. ba yëf ya doxee. booba ngi ci kaw. jardin bi. ñu koy toppatoo. coow li jolli. coow jolli. naan dañuy nangam naan dañuy nangam dañuy nangam. at ma jot at ma jot. bay Seydi Thiaw ba mu duggee jàmmalaay ba mu duggee jàmmalaay. la moom. loolu kenn fàttewu ko. bay Seydi Thiaw dëgg ay jooy fi génne keroog. ne dama bëgg ngeen fonk bés bi. sama baay wax naa ma. tax suuf lépp sëñ Ablaye toog rek ñu pàcc. ñu wëyal bis ñu wëyal bis bi di dox ba ci jamonoy bàyyi laal yàqkat duggati ji yàgg na fi. ko dama bëgg bis bi ñu taxawal ñu arrêté ko nu man ko ñun ñu jële ko sëriñ jële jële ko sëriñ ba ca biir kër la baaraan ñoom ñu génn ko ci tel bi mujj bi fii ci dafa jar xam waaye kiñ koy defal bu ko ñëpp réeree ñun nanu ko xam nanu xam kan mooy borom daax ñu nu jàkkaar la imaam Saxiir. imaam Saxiir. junjoon nañu ko. junjoon nañu ko. dafa waxoon ne roo laay wasiiru limaam. يتبارك jox roolay wasiiru limaam mu ne maxfiyun la mu ne maxfiyun la maxfi nag maxfi nag mooy bu ñu nëbb boo demee ca way ba boo demee ca way ba dafa ne Seydina Isa ibnu Maryam dafa ne Seydina Isa ibnu Maryam dañ woon bu ma kenn xam bi ni woon bu ma kenn xam dama jox si ci Mahdiyu Laay dama ñëw ngir dindi tuuma doom jaam bu wéetal boroomam nee na loolu la ñu wax kon dafa ñëw ngir dindi tuuma ndax dañ ko joxoñoon ndeka yàlla nga sa yaay yàlla nga yàlla la ak yàlla mooy ñetti yàlla moo tax imam Saxiir moo tax imam Saxiir bàyyiwul mu jàll I'm gonna ñëw na ba def waaye ba fii may ba fii may wax ak yow maam gaa yaa koy sëñ téere yëpp boo ko jàngee ba bërki démb ci màkk ci seen xutba ba ñu ne fii jamono toll isaa bu wàccee yaakaar am ba bërki démb ca màkk waaye dañu la téere yi waxoon. waaye la téere yi waxoon. mën nañ kaa bañ a gis. ñoom mën nañ koo bañ a gis. waaye ñun ñu gis ko ñun. moo tax man la. ñoo ni woon Isa di julee. ñoo ni woon Isa di julee. ñoo ni woon Isa di julee. ñoo ni woon. ñoo ni woon. dem jot na fale. am na roolaay mi naan ni rahmate. am na moo di woon ci saa si jógee man bi yàlla yàggal doon na fële am na roobu laay jullee bi imaam ya xamate mu ne def benn naatu ko ñoo ni woon Isaa di jullee Mahdi yan ndéem jóg ne ko mooy bu fi jógee. imaam Saxiir ni imaam Saxiir ni ah am na roowulaay bu jullee li imaam bi wax. ñoo waxoon ni saa di jullee ma di yan dem jom na fale. waaye imam

رسول الله عبد الله بايبا مصطفى امنا يا خير الانبياء لو جاب نبي